salaam salaam salaam salaam asalaamaaleykum mbokki auditeur euh, page Facebook Ndella Madior Diouf di demandé tamit ñu wax Dakar ñu synchroniser jox ko téléphone bi mu woote pour que ñu démarrer synchronisation bi su wootee ba pare mu delloo la ko nga commencé jël ay photo asalaamaaleykum asalaamaaleykum mbokk Facebook Ndella Madior Diouf asalaamaaleykum mbokk YouTube NMD TV asalaamaaleykum auditeur rajo Safir FM Dakar 96.6 sa Dakar rajo bi nga xam ne ñu ngi koy déglu fépp ci Sénégal asalaamaaleykum mbokku internet yi asalaamaaleykum sama xarit yi xalaa asalaamaaleykum Sénégal ñépp maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ñépp di leen di fàttali émission bi nag ngeen koy déglu si YouTube di ko déglu ci Facebook di ko déglu daanaka ci réseau yu bari di leen di gërëm di leen di sant si bàyyi xel bi ngeen bàyyi xel Ndella Madior Diouf tey si dimanche 2 août ndax dama ne tey damay waxtaan ak Sénégal yépp tey damay waxtaan ak sénégalais yi am dégg-dégg ndax sénégalais yi dañu baax coow li coow li coow li sénégalais yi dañoo baax coow li coow li coow li sénégalais mën a àtte dëgg coow li coow li sénégalais yi dañu am yërmande coow li coow li sénégalais yi ñii dañu am bàmmeelu biir ñii amuñu bàmmeelu biir ñii mën a muñ ñii mënuñu muñ pour ñi nga xam ne ñi ngi doog a connecté a xam foo leen ni connecté wu si rajo Safir FM Dakar 96.6 wala si page Facebook Ndella Madior Diouf wala si YouTube NMD TV maanaam Ndella Madior Diouf TV maa ngi leen di déglu maa ngi leen di maa man mii may wax di yéen. émission bi nag tey mu ngi tudd affaire Sada Kane Ndella Madior Diouf ma leen di demander nag ngeen di partager vidéo bi na si ñépp jot moo tax tey damay jël sama temps su naree jël 24 heures na jël 24 heures soo leen tàyyiwulee rek ma tàyyi su naree jël 24 heures na jël 24 heures da waxtaan soo leen tàyyiwul du ma ndax tey C'est le moment de parler et je vais parler émission bi c'est affaire Sada Kane Ndella Madior Diouf 27 ans après partagez leen vidéo bi maximum de partage s'il vous plaît maximum de partage s'il vous plaît Ibrahima yow mi yore partage yi dugg ci messenger ndax soo leen partagé dama koy xam maximum de partage abonnez-vous à la chaîne NMD TV sur YouTube abonnez-vous à la page Ndella Madior Diouf sur Facebook Ndella Madior Diouf ñu koy bindee N majuscule le reste minuscule Ndella DLA Madior bi M bi majuscule la le reste minuscule A D I O R bi tout est en majuscule xam nga man moom je suis la reine des réseaux sociaux donc dama bëri ay pages j'ai de 200 pages sur les réseaux sociaux et beaucoup de comptes loolu moom sama objectif mooy avoir 1000 pages ci réseaux sociaux yi te ñu ngi si d'accord kon partagez leen abonnez leen. vraiment abone leen abonné leen je veux des abonnements sur ma page Ndella Madior Diouf Diouf bi nag tout est en D I O U F tout majuscule foofu laa duggee fa laay defee seen émission Ibrahima maximum de partage waxal photo yi gisuma photo yi xale bi na def euh, na ma wax ko mu snap comme ni ma ko waxee woon dama jëli ko mu snap programme bi bu nekk varié dama jëli xale bi mu snap na snap su snappee pare nga dugg ci partage voilà bi lañ changé programme bi dicté na programme bi yépp di fàttali thème émission bi c'est en direct sur les réseaux sociaux fan lañ koy defee sama rajo bu bees bi mon nouveau bébé ici à VIP Café FM à Sali ñu ngi ci kaw bisis bu Sali à côté de Rhino Resort foofu lay defee émission bi mu nekk rajo bu bees tàkk boo xam ne da ngay supprimer volume boo xam ne fii la ñu nekkoon juróomi at mu am ay gàllankoor en 2018 ñu sàccoon matériel bi yépp fële ci Safri Club yàlla suturaal ñu jox ñu kattan jox ñu doole ba ñu mun a jëndaat lépp lu bees antenne yu bees émetteur yu bees local bu bees lépp lu bees ñu ngi fii Saly à la grande surprise générale ndax loo gëm rek da si sax dàkk sax dàkk man lu ma gëm dama siy sax dàkk je tenais nag à faire beaucoup de précision pour commencer émission bi parce que je vais prendre mon temps aujourd'hui émission bi pour commencer ko c'est la première fois de ma vie que je prends la décision de parler de l'affaire Ndella Madior Diouf Sada Kane dama bëgg mu leer ci c'est la première fois de ma vie kenn mënu wax le contraire que je prends la décision là personnelle de parler de l'affaire Ndella Madior Diouf Sada Kane 27 ans après sur ma page Facebook Ndella Madior Diouf sur ma chaîne YouTube NMD TV di leen demander ngeen abonné si au maximum partagé leen au maximum na si ñëpp jot na si ñëpp jot et sur synchronisé sur Safir FM Dakar 96.6 c'est la première fois de ma vie su ma développé ni yi comprendre ko musuma wax ci Sada Kane personnellement dañ ma ci provoqué nag tuumaal ma ci ba borom yëf yi soo waxee mu ne elle passe tout son temps à parler de cette affaire dans les médias c'est archi faux c'est aujourd'hui que je parle de cette affaire c'est aujourd'hui que je parle de cette affaire sans complexe je dis bien, sans complexe. Et surtout, pour les Ibrahima, vraiment, il faut supprimer tous les volumes. Sans complexe. Et surtout pour les enfants qui sont dans cette situation, surtout pour ces femmes qui n'osent pas en parler yàlla nattuma lii moom muñ ko nangu ko xeex koo xeex xeex bi parce que xeex bi dama koy xeex xeex bi yàlla daf ma ko nattu jox ma ko man dee la maa joju parce que xam ne mun naa xeex xeex bi gis nga nu ma xeexee la nationalité aux enfants nés de père étranger nés à l'étranger de mère sénégalaise que seen sénégalais seen yaay sénégalaise mun leen jox nationalité ça Moïse vient t'approcher mun leen jox nationalité sama doom ji mu nekk sama deuxième doom man mënuma ko jox nationalité maintenant tu peux parce que c'est lui qui joue technicien mënuma ko woon jox nationalité mais dama xeex xeex bi nangu déposer caution 20 millions nekk la seule femme tête de liste élection législative 2012 personne ne m'a compris à l'époque après ils ont elles ont compris les femmes parce que j'avais donné une caution pour les femmes sénégalaises pour qu'ensemble on se batte on se batte pour défendre les intérêts des femmes ndey la major l'éternelle incomprise ki ñuy tuumal day liggéey loo nit dañ ko fay ki ñuy tuumal lu munti ñaaw si àddina ñu tuumal ko ndax parce que vraiment c'est une femme battante au fur à mesure que je parle les femmes commencent à me comprendre aujourd'hui je vais vous raconter mon histoire aujourd'hui je histoire gémmiñ borom borom moo mën raconter la véritable histoire histoire bi na maa ngi koy bind livre kon comme que dem si bind livre dinaa leen épargner des détails qu'on vous allez retrouver dans le livre mais aujourd'hui je vais parler au nom de toutes ces femmes qui ont enfant qui n'a pas été reconnu officiellement mais reconnu dans le cœur da ngeen wax ji les enfants qui n'ont pas été reconnus officiellement à la mairie, mais reconnus dans le cœur. Parce que bépp nit ku jur doom mi góor walla jigéen di nga xam ne yaa ko jur waaye da ko ruus a déclarer di nga xam ne yaa ko jur jigéen bi moom comme que moom la ubbi biiram walla mooy accoucher dina xam kii moo jur. baay bi nag moom mun naa làqutu daw ndax rus rus jabaram rusay doomam rusay mbokkam wala ñàkk jom rek rus rek ñàkk jom rek wala décider rek ñàkk jom rek loolu moom day am ñàkk jom ñàkk jom ñàkk jom ñàkk jom ndax képp ku jur sa doom nga xam ne doom ji yaa ko jur nga daw mi ngi fépp mi ngi dans toutes les confréries religieuses mi ngi dans toutes les sociétés mi ngi au Sénégal mi ngi aux États-Unis mi ngi fépp du gàcce ndax doom alal la jarul rey doom alal un bras de plus un être humain de plus dans une famille quelle joie kon maa ngi gërëm Sadakan moom mi ma may Sara quelle joie maa ngi koy gërëm bu baax ça va surprendre lu bëri pour tout le monde maa ngi di ko gërëm spermatozoïde am moom moo rencontré ovule Ndella Madior Diouf Moutou Sarr dina ma nee na loolu nee naa leen su naree jël vingt quatre heures je prendrai tout mon temps no stress abonnez-vous à la chaîne NMD TV mun ko xoolaat xoolaat parce que émission bi archive lay doon maa ngi sentir ñi nga xam ne ñu ngi jooy à distance aujourd'hui je n'ai pas pleuré sama sama ronga ñi moom nañu yàgg na je pleure plus je ris je suis la mère d'un être humain magnifique et je suis toute contente d'avoir mis au monde un mère un magnifique donc je ne pas pleurer

jigéen juróom-ñeenti weer lay ëmb accoucher que voie naturelle wala par césarienne da ngeen wax ci loolu faveur la parce na ñoo xam ne mënuñoo ëmb dañoo stérile kon yàlla su la mayee nga am faculté ëmb après une fécondation dans le ménage dans le mariage hors mariage peu importe peu importe da koy nangu nga xam ne lii alal bu la yàlla jox la doo ko rey doo ko sànni da koy téye jur sànni la ñuy rey Sénégal foog ñu dugal xale yi seen bopp rapport sexuel si mélange si mariage day am comme ni ko islam ak religion islamique chrétienne wax il faut apprendre à être chaste xaar ba dugg si mariage dogg sëy ndax Ndella Madior Diouf seen yaay mooy wax ak yéen seen i tant ak seen mag après son expérience mon histoire elle est belle je trouve histoire elle est parce que une femme courageuse étudiante en médecine, qui a choisi de garder tout simplement son enfant. Sénégal ñëpp xam nañu fu nit di jaar mais elle a choisi de garder son enfant suite au conseil d'un gynécologue alpulaar que j'ai perdu de vue et que j'aimerais qu'il m'envoie aujourd'hui un texto s'il est toujours vivant parce qu'il m'avait dit garde cet enfant et dans dix ans plus tard tu vas me remercier j'ai oublié son nom il était à l'hôpital principal moom mënu ma fàtte peut-être mën na ma fàtte mënu nga imaginer que c'est Ndella Madior Diouf parce que à l'époque je m'appelais Ndella Diouf bi après li ñu ko dugal au tribunal kooku j'aimerais bien la le rencontrer c'est un homme gynécologue xam nga lan moo jar a ñaan dund sur terre bu am njëriñ je vais parler en tant que coach je vais pas parler en tant que victime non non non dépassé naa stade boobu doom alal la ku la ko jox danga sant yàlla sax doom ku la ko jox danga sant yàlla si tu te dans la vie d'une personne lépp lu fut jaar rek yàlla moo ko tudd kenn mu si dara yàlla moo newoon tey le 2 août 2020 fii si kaw bi si sali ndee la Madior Diouf dina fa def rajo bu bees tàkk tuddee ko VIP Café FM à Saly et que fii première émission bu fi am ça parlera de l'affaire Sadakha Ndella Madior Diouf loolu yàllaa ko tudd kenn moo si dara tey Sénégal yépp ñu ngi may déglu sur la bande FM 96.6 Sénégal yépp ñu ngi may déglu sur la 96.6 à Dakar Safir FM Dakar 1400 et quelques sur Facebook actuellement ñu ngi connecté wu sans partage YouTube bi tamit mi ngi toj. NMD TV dina di demander ngeen abonné wu en attendant le livre parce que lii dafay am livre je raconterai tout et il y aura pas de censure uniquement pour vous montrer que problème dañ koy song problème dañ koy song on va commencer par des clarifications je vous prouve que j'ai la suite dans les idées amul lu may fàtte on va commencer par la clarification modem baa ngi nii soo bëggee su fekkee am nga pape su fekkee am nga connexion am nga connection c'est bon sinon am nañu modem parce que fii moom dama jël samay mesure dama am free am orange maa la wax nii kam sali moom sali moom connexion bi baaxul kon dangay def euh, double connexion dama def modem free def orange fu orange lajjee rek ma basculer si si free pour mën a def sama émission sans problème kon les les les clarifications que je vais apporter mooy c'est la première fois que je parle de l'affaire Sada Kane musta am musta am kon bàyyi leen di ma tooñ lu tax ngeen may lu tax Sada Kane yow nga may tooñ lu tax nga may tooñ bàyyi di làqu dîner, elle passe tout son temps à parler dans les réseaux sociaux. Ce n'est que des mensonges. bàyyi di ma tooñ mosuma wax affaire Sada Kane si réseaux sociaux c'est la première fois 2 août 2020 ma garde sama dignité ne pat di liggéey sama liggéey qu'est-ce qui s'est passé 2008 wala 2009 Aïssatou Diop Fall boobu mi ngi nekk journaliste su dégluwul émission bi woo leen ko mu déglu émission bi boobu mi ngi nekk journaliste wal fajiri demandé ma interview ma ne ko exil bu mu demandé interview bi ma ne ko xalaat naa lépp lay wax lépp lay wax ba mu des affaire Sada Kane que su ma ne woon je vais parler de l'affaire Sada ma ne ko waxal waxal sa waxu bàyyi ak sa waxu ndey ma répété phrase bi su ma invité woon ne ma waxal si affaire Sada Kane ma ne ko waxal si sa affaire baay ak sa affaire ndey woo leen Aïssatou Diop Fall mu déglu émission bi volume bi parce que foog ñu def ay clarification ñu doog a commencé émission Sada Kane kii euh, Aïssatou Diop Fall daf ma daf ma daf ma demande interview ñëw immeuble Safir 97 21 Sacré-Cœur 3 boobu maa ngi marié ak Nero ndeysaan gars yi seen question duñu sóoraale ce que mun na déstabiliser une famille xam nañ ko de mais jaral na leen sa yàq une famille da ñëw ak intention de nuire gisuma émission buñ ma invité te ñëwunu ak intention de nuire dem nañ ba ne ma est-ce que xam nga que Sénégalais yi te prennent pas au sérieux parce que man su ma seetaanee seetaanaatee ay émission ma ne dañ maa yem dañ ma doon invité pour toroxal ma dañ ma doon invité pour toroxal ma man maa si doon génn rek ay sa tu Diop Fall maa si doon génn rek mais da ngeen ñëwoon pour toroxal ma ndey sànn mais comme que man dama mën a tontu comme que man sama médecine bi jànguma ko pour rien du dama mën a communiquer. ma communiqué tontu leen tontu parce que en pleine émission mu ne yi pare que da am doom ak benn journaliste bu sant kan. Comment peut-on poser une, ce genre de question à une femme à qui on a demandé une interview pour parler d'autre chose nga ñëw di ko wax lan nga ñëw di ko wax lan tu peux donner le téléphone à, à Ibrahima commencer à partager donne ça à Ibrahima va partager sur Messenger après tu peux tu vas regarder ton canal tranquillement donc su ko defee Aïssatou Diop Fall ñëw ndeysaan ne may pare que da am doom ak benn doom ak benn journaliste bu sant kan ma ko effectivement loo leen bëgg ma tontu ko loo leen tontu ko loo leen bëgg ma ndax dama mii si saa si biir émission bi parce que dama ne voilà on m'a eh, piégé on vient pour une interview sorti sortie boobu sa manqué wër réer na si archive YouTube bi réer na si archive yi parce que il faut ngeen tegaat émission boobu pour xam li ma di wax peut-être dans car rapide ou bien dans xaw ma lan mun nañu retrouver archive bi j'ai besoin de ces archives wala ngeen wër am archive bi envoyé ma ko par Messenger ou bien par WhatsApp 77 612 39 69 su ko defee. di ngeen xam li ma leen di wax lan la. xam nga lan laa ko tontu keroog li ma ko tontu keroog dafa yomb dama ko ne kii ngay wax effectivement am nañu doom waaye daf ko sékkal benn famille bu gore ndax Madior juuf nekkoon xaritam bu mu yëgee affaire bi. dafa ne bàyyi leen ko avec le temps dina ressaisir wu bàyyi leen ko avec le temps dina ressaisir wu gis nga émission boobu ma ko defee ba pare nit yi dañuy ràng sama kër di ma ziar ñii di ma gis di xëm ñii di ma téléphoné di mu ngi déglu sa émission bi ak dignité bi nga répondre ay suñu femme ñun ñi nga xam ne am nañu même situation ñun ñëpp ñoo ëlbatiku tam reconnaître suñu doom gis na ñi nga xam ne dañuy ne Ndella Madior buy wax xam nga ñan lañu ñeen ñi ay hypocrite lañu ñeen ñi dañ maa sant dañ ma yéene affaire bi ñeen ñi dañoo ragal ñeen ñi seen bopp dañ ko def jigéen di ragal maintenant sanction bi law ba ñëw si ñoom rek loolu rek loolu rek la yàlla man naka na toog antal naa ko nangu naa ko di si gërëm di si sant yàlla maa ngi si gërëm di si sant yàlla parce que yàlla xam ne Ndella Madior Diouf elle est forte lu ne mun na ko encaisser on n'est pas médecin pour rien du tout ñun dañoo autopsie ay nit nit tëdd ñu ubbi ko comme ni ñu ubbee xar comme ni ñu ubbee xar jóge fa. dama Laetitia à l'époque c'était Laetitia fu ñuy jaay gâteau en gâteau en face de cathédrale ndekki fu suñu ndekki yu beex baax parce que xam nañ la vie c'est un cadeau ça n'a pas de prix il e faut profiter tous les jours de la vie tous les jours il faut profiter de la vie soo defee autopsie fekkee autopsie fekk ñu jël machine ubbi la boîte crânienne lekkat bi ñu génne ko teg ko fale jàkkaarloog cerveau bi pour xam lan lu tax nit ki jaar système moom bi ubbi thorax bi xool poumon yi xool kër gi xool lépp jël kër gi dagg ko comme ni ñu daggee comme ni daggee kër bi ngi dibi seet na am na infarctus du myocarde jël poumon yi dagg xool nga xam ne <laughs> y a un Dieu nga xam ne y a un Dieu sur terre bu sàkk ay être humain teg fi charia moom ay état yoo xam ne accepté wuñu charia charia mooy lan c'est la loi islamique ku rey ñu rey la am na leen acte yu bon yoo xam soo ko defee danga lay rey loolu charia wax mais ñëpp d'accord yu si état islamique ñooy appliqué charia ku rey ñu rey la da ngeen wax Sénégal nag loolu amu fi charia amu fi mais damay leen di fàttali ko ñi di wax bàyyi kook yàlla yàlla dafa am di xamal lu yàlla wax ku rey ñu rey la xool leen islam dam leen xooli charia charia bi àtte dëkk te état yu bari ragal ko appliqué lan la wax si jur sànni lan la wax si jur sànni lan la wax si turu xol jigéen lan la wax si humilier jigéen lan la wax si viole jigéen lan la wax si toroxal jigéen lan la wax nañu wax wax ci dañ ko raay tey dinaa wax wax ñi te duma si raay maa ngi leen di santé ñi di jooy commencé gu ma maa ngi woon si Aïssatou Diop Fall nee naa leen tey su jaree 24 heures day jar 24 heures on est dimanche 2 août ñu am jot may defee émission bi fii si VIP Café dóoral ma logo bi ci VIP Café FM Assali double diffusion su ko defee ñu xam ne bi nga jógee ci Aïssatou Diop Fall damaa toog rek RTS 2 RTS 2 ñëw seet ma côté cour côté jardin ma ne RTS 2 RTS 2 di ma seet si man Ndella Madior Diouf man Ndella Madior Diouf bu simple bii lu xew côté cour côté jardin man egsi leen boobu maman Dieye ndeysaan fraîchement divorcée de Pape Diop ñëw Pape Diop ex maire de Dakar mu ñëw moom ak Mohamed Kordou Cissé je pense que c'est ça son nom tamit Ibaadu nee nañu dañuy bëgg xam nga man dama mën a def émission man su ma décidé émission rek su ma décidé def émission rek <laughs> nga xam ne décidé naa def émission di tey woon naa leen ko def décidé naa ñaata nit ñoo deux mille quatre-vingt-quinze personnes ñooy ñoo connecté aussi seulement page seulement sans waxuma nag yeneen page ñu partagé parce que tey damaa décidé def émission. foon yi rek tey dama décider def émission tey dama xeex xeex bi damay xeex xeex bi ma tàmbalee bii mooy épisode zéro ñëw ko ma un bi épisode zéro test la télé réalité lañ koy def faut que ça serve de leçon parce que sama dund day day day utile day am day utile lu ma ko si àddina kon maman Dieye bu mu ñëwee fekk si ma ne dañ dañuy bëgg a def côté cour côté jardin ma leen excellé RTS 2D télévision d'État su ñëwee ma leen excellé ndax promotion la si man xalaat naa lépp ba mu des ñu may wax ay affaire Sada côté cour côté jardin laay xalaat naa lépp kon bàyyi leen di tooñ dee la maa jot juf ne moo nekk si réseau yi di wax journaliste dañu dénkumpa dañ lay piéger soo bëggee poser question wax rek dama je veux que tu parles de cette affaire ma la la d'accord wala je suis pas d'accord mais buy xaar ba ma accordé le interview ba pare nga ñëw rek saraaxal benn question en direct yore même yore montage bi nag nar ka def ni la neexee da ngeen wax bi ñuy def émission côté cour côté jardin bi ñuy def émission côté cour am man de ndox laa amul xaw ma kan moo mën a may ndox parce que ñun boutique boutique dafa dafa sori maa ngi si toxu bu bees yónnil ma kii mu may ma ndox je veux boire de l'eau pas du ndoxu robinet je suis obligée de prendre des daan yi te lii dafa am suukar toxu bu bees laa def toxu bu bees xool oh laa naan nañu ndox yëpp mu jeex gaa yaa ngi dem utali ma ndox pas bon du sucre waaye yokk sama suukar donc côté cour côté jardin bi ñu ñëwee ba ma dalal leen équipe RTS ñoom ñëpp ñu ñëw dugg ils ont parlé de ma vie parce que ma vie euh, macha allah sama sama dund man macha allah je me suis ba nekk Ndella Madior Diouf dama ko xeex langaawu ma sama pap dama valoriser sama pap valoriser sama yaay ju ma fay. moo tax keroog jooju ba ma déggee ñuy saaga Juma Faye dans les réseaux sociaux parce que je n'ai pas de commentaire dama tombé si benn saaga rek moo waral ma jël woo Fatoumata Danso loolu moo indi sama jubóog Fatoumata Danso parce que damaa dégg ñu saaga sama yaay ma ne Juma Faye kenn ko saaga man je n'ai pas su ma léegee commentaire dof dof bi may tuumal dof de du ñu roo dof de du jël du jël du jël kër bu mel nii dafa rajo ñëw leen sali di ngeen ma fi gis ma ne non nga si kaw def sama live kii di wax ak yéen doful de su ma dofoon nag yàlla eh, fekkoon damaa dof yàlla eh, mais dof feebar la dañ koy fekk c'est tout du gàcce gis naa li ngeen di wax la première dame su nekkee dëgg et eh, alors elle va se soigner c'est problème su nekkee tuumal c'est de la pure méchanceté su nekkee dëgg elle se soigne c'est tout quel problème toute maladie yi on soigne toutes les formes de maladie bàyyi leen soxor Sénégal bàyyi leen di soxor c'est tout sincère ce que je suis en train de dire feebar bu munti nekk du gàcce kii di wax ak yéen nag dofu dina jàpp yekk ba bëgg a dee nag jàkkaarloo ko yéen nag am la suite dans les idées nag da ngeen wax kon côté cour côté jardin maman Dieye ak Kodou Mohamed Cissé bi nga ñëwee ma dalal leen sama bureau. xalaat naa lépp ba ñu may wax ay affaire Sada bu fekk man xam nga xeex au début lay métti mais à la fin da dem ba fàtte nit ki parce que man franchement man fàtte woon naa Sada fàtte woon naa Sada Sada Kane naa ko jënd Sada boo gis da koy yërëm mën naa jënd cash Sada Kane moom ak këram bu nekk foofu ñëpp mën naa leen jënd cash saraxe ko cash saraxe ko. kon kooku dama ko fàtte man maa ngi si leneen quand je dis je veux être la présidente de la République du Sénégal en 2029 remplacer Macky Sall bi nga xam ne am na droit présenté en 2024 daf dama ko gëm su na ñoo xam ne d'accord nañ si xeeru su fekkee am dëkk je m'en fous écoute moi j'ai été éduquée dans la liberté je suis candidate en 2029 point barre ku si d'accord baax na ku si d'accord je m'en fous Cette Ndella-là, libre dans sa tête. Cette Ndella-là, elle est autonome dans sa tête. Cette Ndella-là, koy bàyyi rek yow yëpp dégg naa ko kenn xamul fu mu féetee mi ngi si opposition wala mi ngi si mouvement présidentiel bi je m'en fous je de la mouvance présidentielle soo leen ko bëggee baax na soo leen ko bëggulee baax na ba keroog jooju Macky Sall si boppam waxal ma eh laisse-moi tout tranquille bu boobaa ma jël sama yoon. et pour l'instant comme que Macky Sall waxuma laisse-moi tout tranquille je suis de la mouvance présidentielle qu'il pleuve qu'il ba mu ne ma bàyyi ma tout tranquille dégg nga wax bii ma wax nag xam na am na ñu bëri ñu mu naqari je m'en fous moi libre autonome dans tous les secteurs xam nga ku toog jàkkaarloo ko yéen nii xam na kii nekk dans sa tête elle est autonome jaaro sa solo taluma ko jaaro sa solo parce que dama ko dul taal man liggéey rek lay def dégg ngeen wax ci contre Mohamed Cissé ak maman Dieye maman Dieye elle est innocente elle est tellement gentille elle est tellement gentille elle a commencé bu ma commencé émission bi koddu Mohamed Dieye ñëw di ko wax ci nopp bi di ko jox question yi ci nopp bi ndeysaan koddu Mohamed Dieye a manipulé maman Dieye maman Dieye xamu woon sa que Sada Kane sama moo jur sama doom maman Dieye xamu woon sa que j'ai jamais été la femme de Sada si biir émission bi la doog a réaliser question yi koy souffler à l'oreille après ndeysaan daf ko mujj sa am kersa parce que à la la doog a réaliser émission bi ñu tourné ko en deux étapes marche nag macha allah dolo yaa ngi fële si beneen si dressing bi indi ma merci merci. donc Codou Mohamed wax Mama Dieye ci nopp posé ko ci saadakam posé ko ci saadakam mais comment peut-on incrusté dans la vie privée des gens pourquoi vous les journalistes balaa ngeen kontaan ngeen dugg ci vie privée jàmm maa ngi doog a wax tey ci affaire Sada Kane volontairement journaliste yi da ngeen dénkumpote da ngeen soxor ndax pour am buzz da ngeen di bëgg dugg si vie privée nit yi yéen journaliste lay waxal da ngeen soxor da ngeen di dugg si vie privée nit yi volontairement pour ko yàq pour am ay vues sur internet bàyyi leen nit ki dafa ko c'est vie c'est ma vie tey laa doog a jël décision parler de l'affaire Sada Candela Madior Diouf tey yeneen yëpp dañ may nax ba dugg sama bureau poser ay question rax si rek commencer waaw il paraît il paraît il paraît il paraît ah mu tontu la. ba àddina di tukku dama ñàkk fay na ku ma posé question dinaa la tontu gentiment dinaa seet ni mën a mën a tontoo gentiment et c'est ce qui s'est passé donc je réponds bàyyi leen di ma tooñ je passe pa ma ma vie na weer bi gaaw je passe pas ma vie à parler je passe pas ma vie à parler de Sada Kane aw ma jot bi aw ma temps bi ku ko wax danga may tuumaal ku ko wax danga may tuumaal Moïse rapidement le verre je vais vous wax ku si wax danga may tuumal maman Dieng daf na émission bi côté cour café jardin ba pare dama leen si NMD TV di nga ko fa fekk si YouTube posé affaire Sadakan ma tontu ko tontu ba rafet rek man nag amul problème dinañ jubóo tontu yooyu laa tontu après Sarah a pris la décision de faire un témoignage, de lancer un clin d'œil à son père qui a été insensible, parce que Sadaka n'a pas de cœur. Hein? Parce que Sadaka n'a pas de cœur. Tu as lavé ça avec Parce que Sadaka n'a pas de cœur. bi nga yàkkamte nee naa ne su dara ay 24 heures dinañ ko doon mu daal faut que je boive de merci Donne-moi encore de l'eau. Je parle beaucoup, il faut que je boive de l'eau. Je parle beaucoup, il faut que je boive de l'eau. Il fait chaud ici, on n'a pas encore climatisé la salle. L'installation radio dafa métti. Voilà, c'est bon. mais ça rempli ça te je continue ma fille Sarah a fait son témoignage nu mu gën a rafetee fekk ma fa ma tam je suis partie bàyyi ko ñu dem mu tourner toute seule émission bu rafet pourtant à la fin mais ki doon posé question comme que dañ ko souffler à l'oreille avec le recul si la doog a xam lu xew parce que dafa ko ne woon que man mii jàmmu Sada Kane laa woon après la doog a xam que j'ai jamais été l'épouse de Sada Kane jamais on est sortis trois mois ensemble c'est yàlla daf li gën Abonnez-vous à la chaîne NMD TV et clochez sur la cloche de notification. Abonnez-vous à la page Ndella Madior Diouf, Diouf bi c'est tout en majuscule. Et écoutez la radio Safir FM Dakar 96.6 parce qu'actuellement ñu ngi en direct ci Dakar ak li ko wër. ñu ngeen di déglu Ndella major Diouf pour ñu ma xamul may wax tey ci affaire Ndella Madior Diouf Sada Kane 27 ans après. kii di wax ak yéen elle est sans kii di wax ak yéen elle a préféré prendre la parole pour ces femmes qui ont honte de parler ces femmes qui souffrent en silence personne ne peut fermer ma bouche à Dieu personne ndax li may wax dama ko teg si lu wóor yàlla jàllale ko si man nekk ma nattu bi étaler ma sama vie privée damay xeex xeex bi su ma doon étaler sama vie privée boo tàmbale woon naa ko yàgg na musuma ka wax ay dénk kumpa ñoo ñëw à part côté côté jardin parce que maa ngi si clarification yi ba léegi à part côté cour côté jardin am na benn site en ligne fàtte naa site en ligne bi qui est venu parler encore de Sada Kane dans une interview qui n'avait rien à voir avec ma leen kooku daf may daw comme la peste te pourtant yaayam sama loxo yii lu mujjee te muy dëgg wax boobu nag naqari leen je les comprends parce que j'étais seule à gérer cette situation ndamowuma si j'ai eu privilège ama wan j'ai eu ce privilège nañ ma ko nangul parce que j'étais seule dans cette situation nañ ma ko nangul nañ ma ko nangul de nañ ma ko nangul suñuy jaale man dañ may jaale dama bokk suñuy jaale parce que maa am chance bi dund ak Ama Wane avant muy gaañ foo la nekkoon foo la nekkoon kan moo jël frais yi foo la nekkoon taadakam dañ la woo yow sa yaay mi ngi feebar mi ngi sukuraat nga ne doo bouger mètre sa sœur ma nga fa foo la nekkoon ngeen may critique après foo la nekkoon kan moo joxe télécentre yi pour tàgge yi kan moo toppatoo fin bi de koñ bi fees na dell ko oto mais wéetoon naa ak moom foo la nekkoon c'est pas une histoire de famille je ne parle que de la vérité lu ma dund Ama Wane ak baax yàlla na ko yàlla yërëm yàlla ko yàlla yërëm j'ai eu la chance de la gérer j'ai eu la chance de la gérer su fekkee dafa mu naqari yéen a xam j'ai eu la chance de la gérer ndax maa ko toppatoo et j'ai supporté tous les frais fa la nekkoon amu leen droit branché maître ak di wax quoi que ce soit parce que j'ai été seul avec Amawan ba mu gaañu foo la déggoon naa kiriku daf ma doon daf kiriku yam na kiriku doomu xoma kan la encore si biir daf ma doon critiquer xoma la lan di ferme ta bouche là le petit hein parce que je pas vu toi sa maam bu muy gaañ gisuma ko man rek la gisoon man Ndella Madior Diouf loolu sama titre la on avance ne laa leen man ki si flotte si picc mu am beneen journal Sen TV aw ma benn noonu Sen TV ñoom ñëpp de Bougane à si suuf ñoo ñëpp sama xarit lañu mais l'émission Rétro Buzz di ngeen def saara tegu leen ko fenn était venu parler d'une voyante euh, euh, qui s'appelle euh, Yaye Fall bu ñuul qui était tout le temps ivre et que j'ai décidé de chasser de la radio mu fay rajo bi Sara dóor ko c'est ça l'histoire ñiy defar ongle benn ongle bu nekk en face de chez moi la maison familiale à Sacré-Cœur 3 filmer scène bi jàllale ko TikTok mu law si àddina bi ñu ne que kooku bon la boo xam ne dañ ko amel six mois d'arriéré de salaire gis ngeen tuumal yooyu ñuy tuumal dossier bi mi ngi tribunal baax dina tukki duma ko baax Sara porté na plainte mais xale la xamoon ni ñuy suivre dossier judiciaire dinaa si dugal sama loxo baax dina di tukki cette personne qui a fait ça bi day dal koom ak maa muñ gis ngeen ni mu mënee muñ saadakan 27 ans après Sada Kanté mosu leen confirmer que taxaw naa buntu këram 27 ans après mos mën a am loolu du am parce que ça c'est Bandeera Madior ak ma am dignité xanaa du ma du ma jigéen bu mën a muñ am sama classe bopp man je courrai jamais derrière qui que ce soit ak ma mën a muñ góor laaj leen góor yi ñu sa mës a jege damaa mën a muñ góor góor tuuti lu ma muñ naa Sada Kanté 27 ans jéem ma ko sa séen. jéemu ma ko sa seen man duma topp góor mukk si àddina da ngeen wax ci kon rétro buzz je pense rétro buzz xaw ma 100 pour cent buzz pour cent Nafi Dieye moo koy joué moo ko ki ak benn benn góor bu pataani laa comme ay s'appelle encore damay fàttur bi big xaw ma naka la tudd big xaw ma naka la tudd donc su ko defee gis naa ñu bëri ñu ko bëgg a interview dans WhatsApp mais na ngi def ndànk rek C'est mon récit, c'est mon histoire. C'est mon histoire. Je raconte mon histoire. su ma demee ba giif dinaa jël appel yi. la sa C'est mon histoire. kon Reto 100% Buzz invité Sarah pour parler de Yaay Fall bu ñuul appelé Bijou Yaay Fall nekk gisaane woon ci Safina FM ay at yi at dem naa ba héberger ko sama propre néeg rien que pour jàppale ko ndax nekk ci cocaïne yi drogue yeeg yu kankam ak tox yàmba ma ne balaa muy dee overdose xaaral ma récupérer ko sama propre appartement mu bàyyi dama ci am ndam bi ma rëccee ak jëkkëram son mari handicapé mu ko ci man rëcc mu yàquwaat du duggaat si drogue bi duggaat si lépp ma ma gedd ma ne ba arrêté naa affaire ma teral ko financièrement comme que dañ may seen ak xaalis bu bëri ils sont gourmands elles veulent encore elles veulent encore loolu moo waral coow li dañ may seen ak xaalis dañ may seen ak xaalis loo leen jox du ñu doyal ñu lay teg bët loo leen jox duñu doyal soo leen jox un milliard duñu leen remercier mu buggaat xaalis ma bañ ak docteur Sémou Diouf mu buggaat xaalis ma bañ ma ne j'ai dépensé quatre cent et quelques mille francs en l'espace d'un mois et demi si yaay Fall stop moo war a yaay Fall saalit di ma saaga si buntu rajo bi ndeysaan Sarah, elle, elle sera digne, toujours digne, elle sera toujours digne dans sa vie, c'est la fille de sa mère et de son que parce que am na benn côté dëgër boo xam ne Sada Kane rek la que Yaay Fall dafa fay sama rajo mu dóor ko onglerie bi soxor nekk en face nekk ay dëkkandoo au lieu ñu ñu filmer di jàllale après di fen Hongrie bi ñu fa nekk ñépp ay fenkat lañu maa ko wax doo leen ruus dangeen ñàkk jom dangeen soxo dam leen uti liggéey beneen liggéey moo gën ngeen di yër Hongrie jigéen ñi uti leen liggéey Hongrie yi bàyyi leen ko jigéen ñi ñàkk jom maa ko wax ku nekk ak ni ngay xeexee dangeen ñàkk jom dangeen ñàkk jom onglerie d'en face da ngeen ñàkk jom yeneen yore seen portable ku génn ngeen filmer photo ñun tamit def leen noonu rek ngeen xaar seen plainte ndax plainte bi dossier bi mi ngi tribunal xeex bi day mat gis nga man kii si flotte si pic et je prends mon kii si flotte si pic baa dina di tukki li ngeen di def sama buntu kër Ndella Madior Diouf di photo ku dugg génn ngeen photo photo seen loolu di di topp di ngeen def di ngeen koy def seen ndey ak seen baay di ngeen ko def seen ndey ak seen baay seen gàncax seen rakk yi te di ngeen bàyyi Ndella Madior Diouf tranquille engrais bi en face yéen laay waxal. kon 100 pour cent rek si loolu Sara ñëw toog ak a jekk macha la fille de sa mère et de son père ndax ku ko gis xam ne kii ama wan mooy maamam. ñu mu naqar yi de gaaw leen ubbi kàmb yi ngeen gas dugal seen bopp suul seen bopp balaa ñu leen di sulli ñu mu naqar yi gas leen kàmb ngeen suul seen bopp balaa ñu ñëw sulli leen kon naka ngeen di mu ne am benn invité qui parle d'un problème professionnel ngeen bëgg a dugg sur sa vie privée dikka ko naan waaw on n'entend jamais on t'entend jamais parler de ton père Nafi Dieye est-ce que laaj naa sa papa kan sa baay kan mooy sa yaay laaj nañ la ko keneen ki xaw ma nu tudd big xaw naka laa maa ko tuddee monsieur Pata monsieur Pata pouf kuy sa baay monsieur Pata kuy sa ndey est que mos nañ la ko laaj j'ai envie de dire imbécile j'ai envie de dire imbécile mais je vais dire kuy sa baay kii si frog si bic mais heureusement que Moïse Sarah a une bonne éducation tontu leen tontu bu rafet neleen man sama papa ñaari yoon rek laa ko gis mais j'adore mon père tontu leen tontu bu civilisé ak am classe dès la maa doom yu mel noonu rek lay jubbi ñoom classe ñu dul saaga ñuy tontu man dama bëgg sama doom fier sama doom exposé wu ma sama vie privée yéen journaliste yi yéen a dénkum pa soxor fumiste rambaaj maa ko wax ku jege ma mbeg la mbég la ku ma bëgg affronté jege ma ma mbég la boobu di ngeen xam ne nee la maa jot du ngeen ama affaire maa ne da ngeen fumiste da ngeen rambaj da ngeen soxob da ngeen ñàkk jom maa ko wax ku mu naqari jàkkaarloo ak man nga fekk si fii VIP café maa ngi fii sali fii laa dëkk léegi ñu on se on rend on se rend compte des comptes yow su fekkee dangaa bëgg am buzz rek dama uti feneen looy uti si Ndella Madior Diouf looy uti si doomam Sada Kane mi ngi dëkk sa jub natal il vit seul il ferme sa maison forcer la porte et aller l'interviewer pourquoi venir chez moi di demander si affaire Sada Kane est un mythe si yéen mystère la si yéen mais crever l'abcès aller le voir directement pourquoi de contourner di si man je vis pas avec Sada Kane j'ai jamais vécu avec Sada Kane pourquoi poser des questions toujours pour xam Sadakat Esclave jaar si Ndella Madior Diouf arrêté maa ngi doog wax si affaire u Sada Kane volontairement comme que da dénk couper voulait faire mal beneen bi ma naroon fàtte may les pro Sonko juboo naa ak Fatoumata Danso parce que dama dégg mu saaga sama yaay ma woo ko ma ne lu tax ngay sama yaay mu dégg sama baat xam ne baat bii lu baax rek moo fay jóge que soxor nekkul ci tonalité baat bi seetal na ñuy yëndu fii ñu dégagé parce que baat yi dama koy dégg si si su fekkee defuñu dara amul problème su ko defee ñu juboo nekk benn bi ñu jubooyee nekk benn mu nekk ku baax mais pro Sonko yi bi may attaqué quand j'ai dit que Ndeye Ousmane Sonko n'a pas le droit de dire que damay dem tëddi nelaw seetaan parce que loolu moo doon histoire bi ma ne ko droit ne da ngay dem tëddi nelaw seetaan da nga war a sensibiliser tout ta communauté parce que da bëri militant les gens n'ont pas compris ñu commencé di ma attaqué c'était ça l'histoire malentendu bi levé nañ ko levé nañu malentendu bi et la vie continue mais si xeex bi avant que je dise que j'ai déposé les armes si commentaire yi dañ ma doon saboté di wax Sada Kane Sada Kane Sada Kane mais c'est quoi si j'ai un enfant avec Sada Kane et alors du nit Sada nit la comme ñëpp góor la comme ñëpp pourquoi soulever cette pan de l'histoire que j'avais oublié de ma tête moi j'avais oublié Sall Kane pro Sonko ko soulever fàtte naa Sall Kane damaa fàtte Sall ba fàtte affronter problème bi ndax problème bi bu ma ko affronté au tribunal en 95 96 ba ñu yóbbu doom ji tribunal mooy tribunal bi bu nekk après Dantec le juge madame Badiane doon ñu àtte quelques années après douleur bi ma doon sentir dafa sëy parce que le temps efface les douleurs le temps efface les douleurs dangeen wax ji le temps efface les douleurs mais pro Sonko yi ndeysaan problème bi ma ne cette fois-ci il faut régler le problème parce que problème bi l'autre prend de l'âge ma fille grandit je prends de l'âge il est grand temps de régler le problème comme famille bi de deux côtés dañu ne zëmb zëmbaaram ku si nekk di xaar moromam def la premier pas ñuy seetaan histoire bi Madior juuf dafa nekk koo xam ne famille yam dañ ko waroon jàppale si problème bi ndax ku ñu tooñ sa doom da ngay jóg dama régler problème bi mbajum kanam borom moo koy fegal boppam mais sama pap dafa calme dafa calme ba mu ëpp déjà gëmu ko woon mais à la na ko ba moom si boppam moo jël doom di yóbbu ko tribunal Parce qu'à un certain moment donné, Sadakat a voulu faire passer, a voulu faire croire à tout le monde que je ne m'entendais pas mon père. Mon père a donné Major. Si je ne m'entendais pas avec mon père, je n'allais jamais mettre son nom dans mon prénom. man ak sama pap juboo la nii ku si géem a dugg yaa ciy des Madior sa fi préférée sa Ndella Ndella ñëpp xam nañ ko même su fekkee am na juróomi doom ñëpp xam nañu loolu même su fekkee am na juróomi doom du ko wax mais ñëpp xam nañ ko je suis sa préférée kon ku kon doomam da koy métti mais du genre ñoo xam ne koy manifester dégg ngeen wax ji kon clarification yooyu laa bëggoon apporter Sada Kane qui passe tout son temps sa vie à dire que Ndella Madior part dans les réseaux sociaux ah étaler sa vie privée dans les réseaux sociaux moo tax du ma reconnaître xale may tooñ j'ai jamais parlé de Sada Kane dans les réseaux sociaux personnellement j'ai répondu à des attaques de journalistes parce que parfois tu es obligé de répondre tu es obligé de réagir et c'est ce que j'ai fait kon bu leen ma tooñ bu ñeen ñi suñ ko déggee dañuy reetaan mais dafa nekk loo xam ne dafa sax sama biir xol lu tax ngeen di tooñ dee la maajoor bi nga xam ne dafa leen dara dafa leen dara man dafa ma leen dara xam nga lu ma xew ñenn yi dañoo iñaane dee la maajoor cette femme qui s'est faite toute seule cette mère célibataire parce que moi je me suis mariée tardivement en 2009 d'accord 2008 ou 2009 j'ai même oublié la date Je me suis mariée tardivement. Entre ma fille et mon fils, il y a 17 ans d'écart. 17 ans d'écart. kon ngeen xam ne mag ak maa mën a muñ góor dama ko mën a muñ d'accord tous mes enfants je les ai eus par césarienne parce que yàquma sama bokk amul benn góor fii Sénégal ku mën a glorifier wu mais yàq naa Ndella Madior kii lu ma neex laa koy amee amul ku ko wax fen nga ku ko wax fen nga dégg ngeen wax ji daf may neex daf may neex ma donte góor su ma nakkaree doo ma laal doo ma jege doo ma laal doo jege musuma ñàkk fayda musuma yomb dégg wax ji musuma ñàkk fayda musuma yomb te du musa am ku ko wax day fen ku ko wax day fen pour glorifier parce que nit ñi dañuy wax Ndella Madior lii Ndella Madior lii pour ku ko wax fen nga ku ko wax fen nga ak mën a muñ góor dama mën a muñ góor doo leen musa compter dix quinze cent mille personne mu ne ah Ndella Madior de ah mus ta te du mus a am fan la ñuy gisee Ndella kay la ñuy ba gis Ndella Madior elle est inaccessible pourtant on en a vu hein gis nañu wax seen tur gis naa ñuy làmbatu ci ascenseur nekk léegi dans le gouvernement gis naa ñuy jéem a nit ci seen bureau nekk ci gouvernement bi gis naa lu nekk jigéen yi ñoo sonn dinañ leen jéem a làmbatu dinañ jéem a coucher ak ñoom dinañ leen chantage même pour gis président de la république di leen jéem a tëddee di leen leen jéem a chantage mu ne gis nañ ko fii Sénégal jigéen ñi suñu waxee àddina bi tukki suñu waxee àddina bi tukki de ba la wax loolu chantage bu nekk gis nañ ko fi Sénégal dinaa créer benn page bu tudd femme victime des hommes su ma paree live bi rek créer page bi on va recevoir de des plaintes de femmes qui n'osent pas en parler ils vont parler sous l'anonymat ñun dinañ ko jot li daf ko benn recueil parce que ce combat yàlla moo ma ko nattu c'est pas seulement un combat de refus de paternité c'est un combat de viol c'est un de violence physique de violence psychologique nattu bi ñuy teg jigéen ñi yépp di leen di jéem a toroxal di leen jéem a noot Ndella Madior mooy taxaw si kanam ku défendre sans complexe parce que ci biir àddina bi dafay am nit yoo xam ne yàlla moo ne di nattu loolu ñoo xam ne ñii yàlla moo leen di nattu lool pour ñu xeex xeex bi man fii ci Sénégal maay xeex xeex bi pour toute l'Afrique entière parce que natt bu ma ko yàlla natt il faut moom sens pour ma sagal lu tax mu natt ko feneen lay waxee feneen lay waxee façon pression bu nekk jot naa ko démb tey buy wax buy wax buy wax xam nga lu tax ngeen ragal parce que ñi may wax buy wax ñoom tamit di nga am même problème bi. te ñemewuñu wax te bañ bañ ku leen daan comme ni ñu nar a daan Sada Kane ndax Sada Kane dañ koy daan Sada Kane dañ koy daan jël bu set wecc bu amul benn werante xeex bi nag léwatoo bi na 27 ans te damay daan man dinaa daan Sada Kane dinaa ko dóor jël bu set wecc bu amul benn werante te duma dugg këram du dugg ba ba buntu këram comme nu ko nit yi di defee. Sada Kane ma ñëw si Sada yaa bon. yow pression bu ma recevoir yëpp nit yi dañuy foog ne yow tu es une sainte comme ni nday seenee si télé bi foog ne ndeysaan kii dafa yaru kii du sëgg yi xool nit mais Sada Kane yow yaa ñàkk jom yaa ñàkk jom yow da ngay biiral say jànk yi Sada Kane jom da ngay biiral say yi doom yi dudd ñuroog yow am na suñu ma jël sama rajo ñuy liggéey ak man suñu duggee sama nekk damay tiit day mel ni Sada Kane moo moo dugg sët yi sax dañu ñëw ak yow Astou Kane elles sont je vous raconte pas des histoires elles sont je vous raconte pas des histoires vingt lii dafa daw yaram jànk boo am tëddi nga ko biiral ko sànni ko Elles sont partout comme des lamadio. Il faut bien que quelqu'un parle. Il faut bien que quelqu'une d'entre toutes ces parle. yàlla mën na na tontu dee la maa juuf yaa bon tu pas de cœur toi Sarah wax bu rafet bu mu sagal nii si Sen TV ça n'a servi rien du tout nga camper sur ta position émissaire yi ñu ñëw nii lan ngay wax. elle passe sa vie à raconter dans les réseaux sociaux. Et alors Si c'était vrai, c'est même pas vrai, c'est faux. C'est la première fois que j'en parle. C'est la première fois que j'en parle. Je peux en parler fii ba livre bi dañ mu pare du ma wàññi virgule tout ce qui s'est passé dinañ ko joxe ñépp lire ko pour l'histoire commentaire bu leen sonn man je ne lis aucun commentaire lu leen neex bind leen ku ma tooñ baaga ku ma tooñ baal naa la ku ma tooñ baal naa la ak yàlla te sama baal ak yàlla billaahi ku ma tooñ te waruloo ma tooñ da ngay faatu Ndella Madior Diouf ku ko tooñ te waruloo ko tooñ dangay ngay faatu ku ko mu neex nag ku jël risque bi nag dafal expérience bi dangay ngay faatu walla nga dof man Ndella Madior Diouf man man saltige bu jigéen bii nga xam ne may tuura suñu famille man ku ma tooñ da ngay faatu wala nga dof kii si fot si bi tooñu ma kenn dama bañ ba commentaire si boppam du ma ko suñu lire ndax sooy lire commentaire yi da ngay gis les gens sont mais am na ñu baax a baax a baax Mariam wan lii dinaa la woo wala di nga ma woo parce que Mariam lii dafa ne naturellement dina intervenir parce que cette bataille c'est pas la bataille de Ndella Madior Diouf cette bataille c'est une bataille de tout les femmes dinaa woo Mariam wala lii wala dina ma woo dans 30 minutes cinq minutes mais dans une de temps parce qu'on va prendre notre temps xeex bi dañ koy xeex xeex bi dañ koy xeex de kon Sada xam leen Sada Kane Gibraltar bi mu dëkk nekkoo fu lu dul biiral xale yi biiral ay jànkam yi xeex bi nañ koy xeex au nom de tes bonnes que tu as engrossées et jetées comme des poubelles je vais parler en leur nom dina am góor ñu bëri ñu ma mere parce que am na góor ñu bëri lool lañuy def Sénégal dañuy biiral seen jànq yi biiral seen gel yi daw bañ ko reconnaître foo leen ko teg man Ndella Madior Diouf je porterai ce combat sans complexe namu ma dara ku ma gis xam ne namu ma dara maa ngi sama kër di fi fay lu cher te am naa yeneen kër yoo xam ne maa ko mooma sama bopp namu ma dara xeex bi yàlla moo ma ko nattu pour ma xeex xeex bi fii ak au niveau de l'Assemblée nationale su ma juumulee nit su defee test de paternité dama ne su ma juumulee parce que su ma juumulee affaire dafa yàgg man ko Sonko yi ñoo ko suli sinon man ngi fàtte woon naa ko dem naa ba su ma xoolee Saara kan Saara du ma xalaat sa Saara kan vraiment j'avais oublié cette histoire vraiment je vie avec ma fille mais en la regardant je ne voyais plus son père parce qu'avec 27 ans on finit par par oublier et la douleur s'estompe vraiment Mais quand même, il faut régler à un certain moment donné ce problème. C'est ce qu'on est en train de faire. Comme si nous quand on fait un test de paternité, la loi sénégalaise favorise les hommes. La loi sénégalaise favorise les hommes. Après, de fait, si le test est concluant, l'homme n'a pas le droit de donner son nom, mais a l'obligation de nourrir l'enfant. Si nous la loi, parce que j'ai posé la question à deux avocats qui étaient incapables de me répondre à mes questions. D'accord? La loi sénégalaise, d'après le juge Madame Badiane en peut-être il y a des changements entre-temps, si les tests d'ADN s'avèrent concluants, l'homme peut ne pas donner son nom, mais a l'obligation de nourrir l'enfant. À l'époque, ce qu'on m'a faisait quoi? Comme entre-temps, sur le de la famille. s'il y a changement ou pas, dans la semaine, les, les avocats vont nous éclairer. S'il n'y a pas de changement, et si ce que je dis est vrai, à l'Assemblée nationale, on doit modifier cette loi et dire en cas de refus de paternité, si les tests d'ADN s'avèrent concluants, l'homme doit donne le nom, son nom de famille à l'enfant, s'occupe de l'enfant et l'enfant a tous les droits loolu dañu war a xeex xeex bi nous les femmes loolu dañu war a xeex xeex bi nous les femmes pour lutter contre les infanticides pour lutter contre les dépressions des femmes victimes d'hommes pour lutter contre les violences psychologiques les violences physiques pour lutter tout simplement contre toute injustice faite aux femmes contre toute violence faite aux femmes xeex bi dañ koy xeex je porterai le combat et je ne serai pas seule dans ce combat depuis hier je reçois des félicitations depuis hier je reçois des personnes qui me demandent de ne pas porter le combat face à des personnes qui me demandent de porter le combat Et là, Ousseynou ne m'appelle pas, je on en live, certainement il veut venir me su fekkee yaa ngi may déglu da ngay ñëw directement rajo bi ñëpp xam nañ fu mu nekk. Farba à Dakar appel Ousseynou bu ma woo maa ngi live su fekkee daf ñu bëgg a rendre mu woo carrément ibrahim mu ubbil ko bunt bi jeex na mais su ma wooyee day déstabiliser sama live. su ko defee xeex bi dañ koy xeex te xeex bu ma xeex dem si am ndam de man dee la maa jot Diouf xeex bu ma xeex dem si am ndam surtout su ma décidé xeex ko te bii dama décidé xeex ko Sada Kane am nga problème Sada Kane yaa ngi doog am problème xam nga danga maa mos a ragal man yaa ngi doog am problème ndax xeex bi dama koy xeex te dama si am dam te li ma lay conseillé rek mooy sedd la bu mu sedd guy li la war daf ko jàmm na ñooy te du du wàññi virgule de ci sama bataille parce que y a des autres képp koo xam ne am nga doom ak sa dëkkan mu koy bañ a reconnaître sama numéro téléphone c'est 77 612 39 69 commencé ngeen réagir ci sama whatsapp Mm, ba ma leen di invité fii sama kër ñu toog waxtaan dama leen di jàppale si xeex bi dangeen bari bëri ndeysaan ñenn ñi dof nañu ñenn ñi feebar nañu ñenn ñi AVC nañu ñenn ñi dee nañu ndax gàcce ñi fi des ñi fi des tàllal naa leen sama loxo ñi fi des tàllal naa leen sama loxo te ngeen jël seen seen ragal bi ngeen sànni ko sa xaj sa xaj laa wax affronter problème problème dañ koy affronter ngeen ñëw jàkkaarloo ak man on va régler ce problème général comme ça plus jamais ça bépp góor maa xam ñëw bari fii Sénégal bépp góor boo xam ne biiral nga parce que terme yooyu la ñu utiliser am na ñu ne biiral am ñu ne tooñ doomu jàmbur jigéen ñëwal si man ñu xeex xeex bi dañuy xeex xeex bi régler problème bi correctement ba xam ne dootul musti am maa leen gën a xam ne xeex bi may xeex ñu bari dañ ma ci découragé ndax dañu nekk ci situation boobu bugg jigéen yi di continuer di noppi bakkan yàlla santaane wu leen loolu na religieux yi wax na religieux yi jugee suñu waxee da ngeen ne képp ku ko def dañ la war a rey loolu la charia wax na religieux yi wax képp ku ko def dañ la war a rey man dee la maajoor aw ma gàcce aw ma rusukaay am naa sutura waaye soo demee ba war a xeex-xeex bi muy law di law di law ba saada kan biiral ay doomu jaamur yu bëri jànku yu bari gel yu bëri biiral leen sànni leen si mbedd bi ba ngeen leen reconnaître mu nekk wax bu bon boo xam ne tout le monde n'est pas comme Ndella Madior ndax ma na mu ma dara xeex naa xeex bi te Sada Kane taxul ma mel ni ma mel de daf ma si fekk si bu ma amee 19 ans laa ne man dama bëgg nekk président de la République Sénégal tôt ou tard bi ma amee 19 ans laa ne je veux créer une ville entre Mboolé et Saint-Louis tuddee ko côte ouest bi ma amee 19 ans laa xam man sama sens vie naka lay doon dégg ngeen wax. am sama bac en 1986 dem faculté de médecine de Dakar université Cheikh Anta Diop de Dakar musuma redoublé musta am année blanche bi nga xam ne ñëpp redoublé woon moom kese mais musuma redoublé musta euh, am bi ma nekkee quatrième année de médecine nekk stage à hôpital Aristide Le Dantec mam benn xale bu gaañu ba ñu si la décidé créer SOS santé bu ma créer SOS santé. il fallait faire la promotion des SOS santé bu ma defee promotion SOS fa laa xamee Sada Kane bi ma doon seen suñu kër tous les mardis mu ñëw si kër gi ak Madior nekk conseil de son émission Regard boobu aw ma ko moom benn relation c'est quand j'ai créé SOS santé bu ma créé SOS santé fallait faire la promotion de tout un produit comme ni ma naree def promotion ou VIP café radio parce que je ferai la tour de toutes les télévisions je ferai le tour de toute la presse écrite ak presse radio pour faire la promotion de cette nouvelle radio. radio bu am Sénégal muy communautaire muy privé dinaa fa teg sama temps pour faire la promotion de cette radio dégg wax ji noonu laa defee woon nag le tour de toute la presse des artistes naa noonu laa xamante Coumba Gawlo noonu laa xamante Youssou Demba Dia noonu laa xamante Pape Niang noonu laa xamante Ismaël Lô noonu laa xamante tous les artistes parce que mois quelque part je suis artiste te am na solo mel di surprise bu mu leen di génne ndax dañuy génne benn album boo xam ne dañuy sensibiliser sur la santé di ko def ak artistes yi dégg ngeen wax ci ngeen wax comme ci cadre promotion SOS santé boobu laa xam ne ba mu invité ma dans son journal 13 heures de la RTS j'étais l'invité un samedi du journal télévisé archive yooyu peut-être RTS mun na ma ko jox parce que man je l'ai dans des cassettes bon avec les séries de déménagement gars yi sooy toxu da ngay yàq sa bagage quoi donc peut-être à la RTS je peux retrouver les archives kon kon si condition yooyu laa xamee Sadaka si condition yooyu la ma jàppale sama premier don de sang que j'ai eu à faire en 1992 1992 laa commencé def des dons de sang di liggéey ak centre national de transfusion sanguine te Sadaka a été mon premier soutien mettre rapport ak Isam Amaïs indi ma ay gâteau boisson collation parce que soo mayee deret da war a lekk seen sensation tension sanguine indi sandwich également ñu dóor ko mu daanu fan lañ ko defoon centre culturel Blaise Senghor kon don de sang Ndella loolu rek la xam si organisation don de sang laa xamee Sada Kane li Ousmane Sonko di def mu nekk nii vingt vingt huit ans après vingt huit ans après il y a vingt huit ans vingt huit ans. J'organisais des dons de sang avec les artistes. Pape Niang était venu, Demba Dia était venu. artistes yu bëri ñëw ndeysaan am ñoo xam ne wóoluwuñu joxe seen deret dañu préféré woon soutenir tout simplement symboliquement mais joxewuñu seen deret mais si condition yooyu li nga xamante bi nga xamante si condition yooyu dinaa leen privé du détail le détail sera dans le livre le détail sera dans le livre Mais finalement, on s'est aimé durant trois mois mu may fekk ci campus universitaire bu nekk Fass dans le local là le bureau de l'actuel maire de Fass foofu c'était ma chambre que m'avait prêté un collègue un promotionnel lañu war a wax sax étudiant médecine comment il s'appelle encore Ahmed Tidiane Diop, que je cherche. Je sais qu'Ahmed Tidiane Diop, si tu es toujours vivant, tu es quelque part aux États-Unis. On s'est une fois parlé en 2003. Vraiment, j'aimerais bien te revoir. mu nekk sama xarit boo xam ne dafa baax ñoo doon bokk groupe xam man dama fidèle comme ñëpp ñuy nekk sama groupe damay damay entretenir de bonnes relations ak ñoom dañuy xaritoo le docteur Ahmed Tidiane Diop j'ai vraiment envie de te revoir parce que moo ma hébergé woon avec mes avec mes affiches avec mes télés ma transformé chambre en paradis avec des tortues parce que moi je vis tout le temps avec des tortues j'ai tout le temps des tortues dans ma chambre d'ailleurs tortues yi nekk fee dinañ toxu si ñëw fi tortues yi nekk Dakar toxu si nekk Saly fàtte woon naa leen toxal naa bagage yëpp fàtte tortues yi si toilette yi qu'on m'amène mes tortues parce qu'il faut qu'il mange des salades donc su ko defee waa Dakar Ami Mbacké bi nekk Dakar jëlal salade nga joxal ma ko tortu yi ak tuuti ceeb ceebu américain bu nekk si nit su ko defee si condition yooyu li nga xamante ba li am am li am am du mu amee ma résumé leen ko mu daw médecin bi nga xam ne laa dem dafi échographie bi moom moo ma ne xale bi dañ koy étudiant mais si nga su ma xam naa su la neexee avorté mais kii danga ma koy gàddal ah kii lan lay wax nii moom mii devant cette responsabilité yaa ngi maa yaa ngi partagé ce messenger mm-hmm. devant cette responsabilité vraiment devant cette responsabilité ma ne garaaw noonu laa gàddee sama doom te ak ba tey bu ma nekk nii musuma kaa rëccu am xale bu baax mu daw ne lan lay nettali sa papa Sada Kane su fekkee Madior Diouf moo tax nga ragal Madior Diouf moo la gën a gore yow doo rus Madior bi dafa sa émission regard problème bi bu mu amee sax tu as voulu me mettre en mal avec ma famille invité Madior Diouf ci sa émission encore regard mu mu accepté ko xam nga lan la wax comme que invité na ma encore xaar ma dem xam naa suñu paree dina ñëw seet si doomam maa jox loolu la wax moom ak Amadou Ly Amadou Ly wax nag yow ba sonn récemment sama pap bu muy def bu muy def ni ñu koy waxatee encore livre bi laa bu muy génne livre bi dédicace livre bi tu n'as même pas mis les pieds osé mettre les pieds ci cérémonie de dédicace de de Madior Diouf qui a tout pour toi yaa ñàkk jom Sada Kane yaa ñàkk jom. Sada kan soo amoon jom nga teral Madior Diouf il a tout fait pour toi Madior Diouf a perdu sa femme ñëwuloo ko jaale ji kon yaa dëgër ñu doon def médiation bi yëpp dee nañu ñu doon def médiation yëpp ci sa famille dee nañu quelques personnes ñoo ci des nga dëgër rek moo tax tey may def live bii di wax ak yow di wax ak justice su Sénégal justice Sénégal xam na lii mën nañ ko régler à huis clos au tribunal parce que 1995 ou 94 bi nga demee tribunal c' était à huis clos ak madame Badiane pourtant mënoon nañ ko def publiquement j'ai choisi aujourd'hui de le faire publiquement pour m'adresser à la justice sénégalaise sama version ñu dégg ko parler sans tabou am ñu ma ko nangul am ñu ma ko nangulul am ñu ma ko à tort foo leen nekkoon durant ces vingt-sept ans ma famille la famille de Sada foo leen nekkoon durant ces vingt-sept ans xam problème bi ne pat da ngeen ma ko yéene foo leen nekkoon xam ngeen que Madior mënoo régler problème bi ndax Bour Sine la dañ ko tooñ Sada Kane mooy sukk jébbalu ñëw Jérôme Diouf mus na ma côtoyé ne ma Sada Kane de dafa ne dafay ñëw baalu si àq Sada dafay ñëw baalu si àq jour tabaski jour tabaski bu jot Madior Diouf mi ngi lay xaar ñu gëmloo ko loolu dëgg la am du dëgg yàlla rek a xam finalement mu ne ma c'est un il la peur d'affronter la réalité ndeysaan ki ngeen di gis muy def émission ci 2STV ngeen fooga ne dafa saint nu la day biirale jànkam di jur di sànni di biira jigéen yi ku ko gëm ku ko gëmul témoignage à visage découvert ou non découvert dina am ci à suivre ndax ñoom dañuy ñëw da xam xale yi ñoo xamante léegi xale yi ñoo xamante léegi di damalante ndax ñoom ñëpp dañuy niroo ndax yàlla loolu dala koy nattu soo juree doom ba bañ ko yàlla dalay nattu xale bi day ñëw indi sa photo sa copie conforme xale yi dañoo ñuul kooku ba seen signe yi ñuul seen signe dafa ñuul kooku suñu xeesee rek dañoo diw seen yaram sama sa Sara léegi dafa xees parce que moom mooy mooy leer ak kanamam ba ñu ñuul kooku daa ñuul ba làmmiñ bi ñuul làmmiñ bi si boppam dafa am tepp tepp yu ñuul mooy ñuulu tukkuleer yi waaw daa ñuul da ngeen wax xees suy am man maa gën a xees sama doom man sama yaram yépp dafa xees sama kanam extérieur yi ñoom ñoo lakk ndax je m'occupe pas de moi léegi sa lay def effort di occuper sama yaram parce que j'ai du mélange de portugais dans mon sang gis naa benn internet laa doon saboté affaire bi su ma amoon mélange métis sama doom du weex taal sama yaay dafa weex taal sama maam weex taal ndax dañu am mélange portugais suñu famille moo tax suñu juree doom ak tubaab day weex taal gis naa kenn ku ma si doon saboté loolu ngeen di saboté mais c'est la réalité parce que da di choco ba di choco si loolu ça Moïse viens voir montre-le viens allez viens toi tu pas de complexe nous on n'a pas de complexe Il y a 3000 personnes qui te regardent aujourd'hui. Viens, c'est à comprendre, fais le tour. Il y, a, il y, a, des gens qui pensent qu'ils ne savaient pas que j'avais un client. Donc, mon fils est là. Les autres métis sont marrons. Qui l'a parce que j'ai moi-même du sang métis dans mon sang. T'es l'autre du titre. Tu peux partir. L'autre du titre. c'est une réalité kon waru nañ ko utiliser dañ woy Ndella Madior danañ leen dafa am maîtrise portugais pombalan ci deretam wekkkkkk wekkkk kon foofu ngeen di toog na yéen rokki joox bi jur sama yaay daa weexoon taal karaw yi nooy nepp gudd ba si suuf rokki joox mooy magu duudu joox ñépp xam leen Tataguine ñépp xam leen Diouroup ñépp xam leen Fatick ñu sokke ko Joal ñooy wax epa eh da ngeen wax ji ñoo ñoom ñooy wax ay eh, parents man je suis de Joal Fadiouth Senghor di sama maam da ngeen wax di du ko tiitaroo Awa Marie Coll Seck di sama mag nit day xam fu nga sokkee koo Buur Siin di sama maam sama côté pap sama côté yaay Sàmmoon Fay mooy sama maam Senghor nekkoon président de la république premier président de la république Sénégal nekk sama maam direct loolu du tiital c'est une réalité ñun waa Joal lañu suufu Joal sama maam mii moo reyoon lion bi doon terrorisé ba fii ba Saly man su ma nekkee Saly sama kër laa nekk ndax sama maam moo xàll yoon bi rey euh, lion bi doon teer taxoon kenn lu fi dëkk sama maam moo ko rey kon dama nekk sama place fii si Saly duma gan man duma gan Joal duma gan Pointe Sarène duma gan ñanin duma gan ba Touba Dialaw gaynde bu leen doon terroriser dam leen laaj Khady Diène bi ne Joal mu raconte leen toute l'histoire du ma gan Petite Côte maa moom Petite ku nekk da war a xam fa nga sokkee ko nit ku nekk da war a xam sa maam sa arbre généalogique da nga koy xam soo gisee may xeex pour Sarah Sarah n'est pas Néro et ne sera jamais Néro Sarah kan Et ça, c'est l'histoire, c'est la justice sénégalaise qui me doit ça. À travers ça de Khan qui va régler ce problème, mort ou vivant. Mort ou vivant. ñaanoo ma la ko yàlla mais yàlla su la reyoon ma sulli la test d'ADN bi dañ koy def yàlla su la reyoon sax dinaa la sulli yàlla su la reyoon billaahi dinaa la sulli comme ni ñu def Yves Montand ndax test d'ADN bi dañ koy def mort ou vivant day mat xeex xeex day mat xeex yaa ngi doog am affaire nag ak gaynde <laughs> yaa ngi doog am affaire ak gaynde xeex bi xeex la de te dama koy xeex te billaay bi nga di nga xeex la man dinañ ko bëre dinañ ko xeex huissier dina ñëw sa kër jox la sa convocation manu militari tu vas sortir ton sang manu militari et le test d'ADN se fera manu militari loolu làqutu làqutu làqutu du ma taxaw bukk ba àddina di tukki sa buntu kër musuma taxaw sa buntu kër pour pour vilipender la comme yeneen doom yi ni la vilipender am mais huissier moo fay taxaw indi la sa convocation parce que test d'ADN dinañ ko def cette bataille était sera internationale France 24 Radio France Internationale toutes les radios et télévisions bi monde laa wax CNN cette bataille sera internationale pour les femmes dootu leen biiral ci doomu jàmbur di daw munta ne mun ne yàlla su ma nattoo problème bii dafa xam ne man mun naa ko régler te dinaa ko régler yow yaay kan saada kan ba kenn xam munaloo dara sa fami bi nga amee un an la sa yaay bàyyi dina nga ne bi nga amee un naa lañ la abandonné sa papa ak sa yaay divorcé sa yaay sa papa moo la jur moo la moo la moo la moo la toppatoo fële si Medina di loolu loolu dafay justifier doom boo am sànni ko tànn ñooy reconnaître ak ñoo du reconnaître yaay kan sànni kan laay waxal yow laay waxal yaay kan yaay kan ba di jur sànni yaay kan ba di biiral say jànk di jur sànni ñoo ñemew ñu wax ndax amuñu doole Ndella Madior nag moo am doole pour wax ak yow faalew ma la Ndella moo am doole pour wax ak yow am ses outils de communication nara régler tous les problèmes des enfants non reconnus dans ce pays sans complexe sama doom Saara amul benn complexe leena la may wax soo ñëwoon di fay scolarité amat amat sa doom fare cour Sainte Marie de Hann moom moo doon fay scolarité boppam te danga ko doon romb mu lay gis ngay fay scolarité amat amat dangay tànn ñu ngay reconnaître ak ñu nga du reconnaître nga man amat afri ñoo la ëpp xaalis ñoo la ëpp xaalis fuuf ñoo ëpp kër fuuf ëpp la outil de communication waaye sa li nga war a régler da nga koy régler force yow laa une bataille de communication loola neex na nga wax waaye sa deret dinañ ko jël moo ko vivant bi laax sooy juum juum ba di dee avant dinañ ko sulli sooy juum ba di dee avant dinaa la sulli test d'ADN bi par force dinañ ko def ça va servir de sox à tous les hommes li may wax ni dina choquer des gens dina choquer des gens parce que dañuy tiit parce que dañu ne ah, man tamit jur naa sànni de mbaa dañ ma def képp ku fi jur sànni te nga man di je vais porter ce combat dee dinaa la sulli ñu def teg dadee ni képp ku fi jur doom ba ba faatu dem tëdd cimetière dinañ la sulli def teg dadee ni parce que li dafa yomb trop Ndella Madior va va porter sa combat daf ko benn ONG on vous allez apprendre à respecter les enfants dañu war a am un certificat de naissance déclaré par leur propre père États-Unis doom boo fa jur yow yaa koy déclarer sa bopp yow en tant que femme mais fii Sénégal benn jigéen amul droit déclarer à moins que nga déclarer doom daf ko su tur mais góor gi mooy war a indi sa pièce d'identité déclarer foo leen jigéen dafa war a déclarer doomam ce combat on va le à l'Assemblée nationale lii moo tax infanticide yi yokku lii moo tax le taux de déclaration des enfants du du du yokku parce que da ngeen nekk si àll yi di biiral doomu jàmbur yi di bañ a reconnaître doomu jàmbur yi foo leen ko teg fenn tegu leen ko fenn vous aurez Ndella Madior Diouf en face de vous sans complexe aw si benn complexe ragalu ma si kenn et je porterai combat waaw am na koo xam ne euh, Félix Ibrahima xam naa ne standard baa ngi exposé maa def exprès rendre ko muet pour ñu ba a dégg sonor waaye kii war a dugg jox ma ko kii war a dugg jox ma ko avertir leen Ibrahima su ko defee ñu continuer waxtaan bi na ndox bi na ndox bi ñëw na ndox bi ñëw verre bi na ñëw ndox bi ñëw pourquoi le verre s'est déplacé yaa ngi fi am pagaille donc su ko defee maa ngi leen di gërëm di leen di sant ndax gis ngeen On est à 3210 sur cette, cette euh, page sans compter vues yu nekk ci yeneen page yeneen page yu synchronisé YouTube bi c'est la première fois que mu exposé nii 523 personnes sont en train de regarder sur YouTube donc waxal ak moom ba pare en hors antenne su paree nga jox ma ko donc su ko defee waxtaan bi vraiment ñu tàmbali ko képp ku bëgg a intervenir mun nga woo si 77 par WhatsApp. 612 39 69 dinaa la jël si njëkk ak teraanga ku fi débordé dinaa la coupé ku fi débordé dinaa la coupé il est elle est prête daf lay ñëfu professionnel donc ku paree ngeen jox ma ñu ñu enchaîner.